waaw li ko tëraloon yàgg na ndax mën nañ ne ñaar fukki at a ngi nii dafa tëdd loolu du ay caaxaan te koo ne kuy mbind sëriñ Abdou Khadim mën na laa wax ne xale yu ci bari tey jii xàmmewuñ ko ndax tëraay bu yàgg. waaw feebar boobu nag mën nañ ne ñun ñii di njaboot gi feebar bi daan ko tëral ndax léeg-léeg suukar si da daan. yéeg niñ ko xamee mu mu mu bari lool tamit ci ci ci ci Touba gi feebar boobu nag moo ko moo ko moo ko moo ko daloon daan na ko daane ñu daan ko yóbbu tamit di ko traité ndaamaatu ak fii ci hôpitalu guy mbind bi. tey ci suba lan nu yëg wàññi ko bi kilifa yi am na ñu fa doon dem waaye gisuñu ko séen nañ ko nii ndax booba réanimation lañ ko lañ ko lañ ko teg kilifa yi egg ñu ci moom. waaye ba tey tamit waxuñu leen lan moo ko dal mbala eh, feebar bi la mbala lii mbala laa kenn waxu leen yooyu yëpp kenn waxu leen ko woon te eh, yaakaar naa ne tamitam eh, foofu waa waa hôpital bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo yore wàllu yooyu war seetaat bu baax wàllu communication bi ak seen wàllu doxalin tamitam ndax nun am nañ ci ak jaaxle lool wax dëgg yàlla ndax soo sañoon soo indee malaat lu man ñetti fan rawatina nag ñu ciy tudd leneen ak leneen da nga ko war nga ko mën a xam xanaa balaa yàlla di ko fi jëlee ak ni ndogalu yàlla demee ak nu ko mën a nangoo war noo mën a xam lii lan moo ko dal ba ñu nit dara duñ ci bett mbala matuwaay bu ñu mën a jël ñu mën koo jël waaye ci suba lan ñu xamal ne nu mm, yàlla def na li gën bañ ñëwee tamit ci hôpital yi kilifa yi bañ egsee ba ñu xamal leen ne mm, yàlla def na li gën ci lañ leen doog di waxee. ni leen am na luñ jëloon ci moom ba yóbbu ko ñu di ko def euh, di ko di ko saytu muy test bi mm, suñ ko mënoon a xaar tuuti ñu ñu ñu ñu ñu ñu xaar ko euh, biñ xaaraatee tuuti tamit ci lañ yëgle ne euh, daal am na leneen lu ci xew daal mooy feebar bi mel na ne moo moo ci am nga xam ne loolu kon moom manquement la boo xam ne ay la yéwén dal nañu suñu kaw dal boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy mettitlu di ko naqarlu bu baax a baax te tamit di ci di ci di ci di ci di ci interpeller euh, le président de la république moom mi nga xam ne euh, bi mbir mi xewee moo jàkkaarloo ko askan wi ne leen l'heure est grave muy lu nga xam ne loolu yóbbu woon na fitu képp ku doon ko xam président képp ku am pouvoir képp ku xam kilifa loolu yóbbu woon na sa fit ba tax na njortoon nañ ne lépp lu ci war ci wàllu saytu ak ci wàllu toppatoo dinañ ko ci def léegi bi ñu jógee ci loolu ci hôpital bi ñu xamal ñu loolu ñoom toog nañ wax ñu ni seen xel dal pour ñu doxale ko ci wàllu denc baag wàllu yooyu yëpp ñu ànd ci ak ñoom macha allah ah suñuy kilifa ànd ci ak ñoom def ca lañ ca war a def lépp ci ay matuwaay ak yëpp waaye bañ ca jógee ñun suñ kilifa yi dellu nañ ci kër ga. matuwaay yu ñu ci war a jël jël nañ ko ñu nekkoon ak moom ak kër gi mu nekk woon gi mu jóge woon ak ñi mu jaxasoo lool ñun ñëpp kenn ku ci nekk jël nañ ci ay matuwaay ñoom kilifa yi te xaaruñ ci masam xaaruñ ci ba dem waaye nag ma leen di laaj nan ngay tooge ñu ne ay milliards def nañ ko ci lii nga xam ne moom mooy mbas mi ñu ne am na béréb sàngam diw mii ne moo fi jóge léegi kat. moom moo ko yóbbu nga ne njabootam nii kat lañ ko war a doxale ci denc beeg yépp ñu nangul la ko nga jóge fa fam nekkoon ak ñam àndaloon ak fam jaaroon mbala fa mu doon dund sa tànk jaaru fa ngir def fa benn saytu mbala ngir mbala ngir désinfecté ko mbala nga nga def quarantaine euh, ña fa nekkoon kër ga mbala nga jël ci benn matuwaay loolu xajul ci bopp su fekkente ne lañ ko te la tax ñu def ko ñun xamuñu ko ñoom ñoo ko xam waaye ñun de xamuñu jàngalewuñ ñu feebar bi noonu te ñu nit ay la muy gàtt di gudd àdduna bi léegi village planetaire la kenn umpul dara umpul kenn kenn kenn du benn xam-xam fii ba Chine gëm amee woon ca Wuhan la xaw ma ba sama saal bii ma toog lenn loo xam ne am na ci virus mbala mu am ci maladie infectieuse mbala mu am ci benn maladie boo xam ne OMS mbala beneen beneen beneen kuréel boo xam ne ci àdduna bi ñi ngi koy saytu te fii ma toog mbala keneen ku mën a doon mënoo koo xam ci saa sa amut loolu dara mun cee umb kenn ñun feebar bi ni mu demee. la cay am ak feebar bu dul moom sax xam nañ ko ba tax na ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci wax mboolem famille bi di wax ab Ablaye Diouf saar ak monsieur le président de la république manquement bii nga xam ne ñoom def nañ ko ci lii nga xam ne moo xew guy mbind waaye guy mbind gépp di ko naqarlu ba mu xewee nii nga xam ne bind nañ ko rapport jox ko nit ñi ñu tasaare ko ni kilifa diini la ak nangam nangam loola waroon nañu am fayda ju day le lañ ca waroon ñoom ci seen ci seen matuwaay ak ci seen saytu ndax santé publique la te ñoom lañ ko dénk dencuñu ko maam Serigne dénk ko ma Samba dénk ko ma Demba Ablaye Diouf saar lañ ko dénk ak commission bi ñu àndal ñii nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi loolu moo leen waroon ndax munuñu am ne mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu nangu ne to to toomaal nañ ko loolu ñun ñu toog di jooy suñu naqar ak leneen àdduna bépp di ko coow. ñu wàññeekuwaat ñun suñ jëm bopp jël suñu matuwaay ngir xeex feebar bi ñoom ñi nga xam ne jëlul nañ milliards yeeg ak yaakaar ne ñoom ñoo am xam-xam baag ak yaakaar ne ñoom ñoo am responsabilité ñu taal seeni oto dem ba fii may wax ak yow kenn jaaru fa kenn jaarul ci kër gi kenn yónneewu fa kenn ñëwul désinfecté mbala nga xool mbala nga jéem a saytu ci lenn kon tamit maa ngi leen di mettre en garde ci kanamu nag àdduna bi yépp maanaam tey jii tuubaa kaa bu ñu fi déggati mbala feneen fu mu mën a doon seen responsabilité ma nga ca ndax ñun tudd ñu feebar bi ñoom ñoo ko fi tudd benn ba pare bañ ko tuddee matuwaay ba ca waroon na jël yépp kenn jëlu ko ci kon nag ci kanamu àdduna bi ak ci kanamu waa Touba gépp maa ngi leen di maa ngi leen di mettre en garde ci loolu seen responsabilité la feebar bi amoon na Touba jóge fi kon su fi amaatee kat kenn ku ci nekk xam na lii ma la wax nii lan la am ngam xel te yaa ngi xalaat manquement yi nga xam ne wax naa ko ci manquement yi nga xam ne wax naa ko ci nga xam ne bi mbir mi amee du quarantaine du désinfection du dara loo xam ne def nañ ko ci lu dul jóge ci hôpital ba dem ca denc ba manquement yooyu ak ni ñu daan déggee feebar bi loolu kon jàngat bi ci ñu ciy def na ngeen ci xalaat bu baax jàngat bi ñu ciy def mooy mel na ne kon ñoom ñi ñi wax ne am na ñoom sax gëmuñu ne kon lii moo moo moo lu am la ndax njort naa ne su fekkonte ne ñoom gëm nañ loolu lii lii nga xam ne moom lañ nekk nii di naqar wi tamit dafa am lu mu ñu jural ndax lam ñuy jural mooy ñoom ñi nga xam ne nee nañ feebar bi am na lii xew te fu mu waroon a xew ci Sénégal fu mu waroon a xew ci askan wi ñu waroon a jël seen matuwaay yu mat sëkk-sëkk ba ñi nga xam ne demagul ci ci ci demagul ci ñoom ñu war a mën a taxaw jël seen responsabilité ak matuwaay yi ñu ci war a jël ci wàllu désinfection ci wàllu ñëw waxtaan ak ñoom ci wàllu ñëw yee leen ci nan la ñuy doxale ba feebare bi dootul lawati kon ñoom suñu defut loolu day wane ne kat kon ñoom lii ñu wax ñoom seen jëm bopp sax gëmuñu ko loolu nag jaaxal nanu lool.